jërëjëf euh, monsieur le ministre euh, maa ngi leen di sant di bëgg a rek wala jéem a ci wolof mooy li nga xam ne sama kilifa di porte parti bi wax na ko di wax rek ne ñu ngi leen di sant bu baax ci turu alliance pour la république muy APR di suñu parti ak ci ki nga xam ne mooy njiitam. di le président Macky Sall di leen sant bu baax euh, wax nañ leen ko xam ngeen ko yii nit ne cent jours ñun def nañ lépp ci njekk ak teraanga pour bàyyi ñi nga xamante ni nii cinquante quatre pour cent population bi ñoo leen fal ñu liggéey ci dal waaye nag man maa ngi doog a gëm ne parce que dama daan gis ñu ne Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy Sonko waaye man barki démb laa gëm ne dëgg-dëgg Jomaay mooy Sonko Sonkooy Jomaay ci wax ju bari ñàkk dal ak wax loo xamante ne nii loo wax génn ja pour wax rek ne président de la république moom moo choisir dal boobu ñu nekk woon gentleman boobu nga xamante nii amoon nañ ko te du ñu tax nag ñun ñu bañ ko amati ñu bàyyi ko ndax gémmiñ su waxul dëgg wax leneen lu dul dëgg moo tax ñu ne dañuy woote pour leeral moo tax ñu ne cent jours yi dañuy woote naam pour leeral waaye ñoom wane nañ pour def ñun appréciation simple ci yenn 100 jours yooyu mooy 100 jours yi. ñoom xamuñu fu ñu jëm amuñu benn orientation ci li ñuy woowee ay politique publique cent jours yi ware nañ ne projet bi nga xamante nii moom la jaay Sénégal yi du dara lu ngelaw ware nañ ne ñoom li nga xamante nii jàppoon nañ ne bu ñu ñëwee ci nguur dinañu ko bàyyi mooy wax weddi ci loolu lañu ñu gën a sax tey ware nañ ne saaga xaste wax lu ñaaw ak xarab dañu nekke woon tey la waalo gën a ay ware na it ñoom menaces yi nga xamante ni yéen a ngi fàttaliku son premier ministre ci la dëkke woon guddeeg bëccëg gendarmerie police ak yooyu tey bi mu yoree nguur nekk seen kilifa tey la ci gën a sax li nga xamante ni nag moom moo jéggi dayoo te loolu jàpp naa ne amul kenn ku ko mën a accepter mooy persécution persécution bi ñu war a nekkee bëgg a nekkee ci lii nga xamante ne nii moom mooy fiscalité parce que jàpp naa ne fii ak ay fan yu néew wala ay weer yu néew ku noyyi nañ leen fayal impôt yu boobu beneen bi mooy dañu ci jubli nag lépp nag pour ñi nga xamante ne nii ay sénégalais lañ am liggéey ay xale. non seulement amuñu xalaat pour jox leen liggéey ñu ne nañu fexe nasaxal seen liggéey yooyu donc lii moom mooy pour tàmbali seen ñaar fukki fan cent jours yi loolu lañ ci commencé beneen bi nag mooy li nga xam ne moo xaw rafetal loolu tuuti mooy ñoom tàmm nañ ba ñu ñëwee léegi ngénte doom yoo xamante ni juruñu leen mooy lan tàmbali continuer PSE bi parce gis ngeen ba léegi loi de finance ba nga xamante ni moom lañ voté woon muy LFI 2024 yokkuñu wàññiwuñu dindiwuñu benn direction budget programme la alal ja nga xam ne ñi ngi ko doon lebi sax besoin d'investissement la boo xam ne dañ ko voté ci DPBEP donc loolu tamit ma wax leen ko ngeen xam ko parce que yéen ngi dégg ñu naan am nañ ay nangam moomuñu ko dañ ko fee fekk maanaam ñoo ngénte ñu commencé ngénte doom yoo xam ne juruñu leen beneen bi mooy continuer toujours ci ngénte doom yi juul continuer la mise en exploitation de Sangomar mooy pétrole bi ndax gis ngeen moom mi nga xam ne mooy le président Diomaye ngeen gis ko mu sol tenue dem dugg biir Sangomar te li gënoon a rafet mooy mu ne président de la république bi nga xam ne muy Macky Sall moo fi nekkoon def fi xale yi nga xam ne ay sénégalais ñu liggéey pour exploitation pétrole bi ak liggéey bi nga xamante ne nii def na ko fi maa ngi koy sant di ko gërëm waaye dégg ngeen amul benn yoon boo xam ne wax na ci loolu te loolu gis nga ne ñu ngi koy continuer waaye nag ñun bañ koy def réew moo taxoon donc ñu ngi ciy sant di gërëm beneen bi mooy mooy mise en service du te gis ngeen bi ñu ñëwee li ñu njëkk a inauguré moom mooy xool rek doom yi nga xamante ni bàyyi woon nañu te ñuy doom yu baax nag ñu ne nañ leen ngénte mooy mise en service du BRT yéen a ngi dégg ñu def ngandam euh, tole ci li ñuy woowee mooy set setal bi yéen bu leen fàtte ne dañ doon wax ne premier samedi de chaque mois ñoom ñu ne chaque mois loolu lu ci soppeeku donc loolu it baax nañu koy leeral di wax rek ne 100 jours yi Euh, waxuñu mën nañ ci présenter bilan mais opportunité la pour que ki nga xam ne moom la ñu jox réew mi te yow nga ne da ngaa am programme mooy projet bi ñuy wax da nga xamante ni ba léegi génnagul moom la ñuy wër nga génne ne man kat fii laa bëgg a jëm wala nga ne politique yi nga xamante ni sama vision ci wàllu politique lii la. cëslaay yi nga xamante ni ci laa nar a sukkandiku lii la pour que population yi nga xamante ni surtout ndaw ñi ñi ngi nekk tey yi continuer di dee ci géej gi ñu ne kat ñun ñi nga xam ne ñoom lañ fal am nañ ay orientation yu baax ñun kat mën nañoo toogandi pour xaar waaye comme loolu amul loolu moo tax phénomène boobu gis ngeen ni mel donc ñu gis ne 100 jours yi wane mooy tële. wax ju bari loo waxoon génn ci tâtonnement ak ay confusion de rôle kenn xamul kuy président kuy premier ministre parce que président bi sax moom ci boppam nee na li mu bëgg moom mooy ki premier ministre bi nekk sax palaasam moom wane na ne moom amul matu pour nekk président loolu leen ñëpp yéen a ko dégg doo yéen sénégalais yi je pense que loolu gis nañ ko beneen bi mooy li ñu mën a xool